parce que xaw ma nan laa mënee toog garde secret yi wala man laa mën a toog te man leer na ma ne parce que mosuma xam ne ñoom ndey faatu ndey Ndeye Ndeye Ndeye Khady ak Ousmane Sonko dañuy déggante daawoon naa si dute parce que ci si ay biiru waxu Ousmane Sonko daf ma doon wax yoo xamante ne daf may doon ay dut pour ma gëm ne moom ak ki nga xamante ne mooy Fina di Estella dañuy déggante après si la ma si la ma ne man xam naa ne doon nit ku bon sama téléphone bi jour boobu noonu sax pour bañ ko pour am ay soupçon wala quelque chose mu bañ am ay soupçon que amaana maa ngi koy enregistré affaire loolu appel whatsapp laa ko woo jour boobu noonu mu ne ma aji ma ne ko ah mu ne ma xam naa ne doo nit ku bam li tax ma wóolu la bàyyi la sama kër di fanaan hôpital bàyyi la ak sama jëkkër xam naa ne doo nit koo xamante ne da ngay caaxaan wala nit koo xamante yow nga xamante ne chaque jour ma ma la ma wax la ci fii nii fii nii ñëpp di dégg chaque jour ma la yow lesbienne nga chaque jour ma wax la ko dem na sax ba ci capitaine toure ne ko kii de lesbienne la moo tax bu ma déggee ëmbam wala bu ma déggee leen daf may jaaxal parce que aji mii damay déggi sax muy wax téléphone di wax ay wax yu garaaw ci ay jigéen wala affaire yi ay jigéen rek laay gis mooy waxtaan te testé naa ko ku ne ndax fi naa noonu lay def bu amee fii dalay test ak ay clients yoo xamante ne dañoo am xaalis ko ñooñu pour tëddee la xool ndax taxawaalukat nga wala liggéey moo la fa indi ñooñu mun la lii ni proposé ba proposé ay 200000. ne ma aji proposé naa la ku nekk waaye mosuma mosu mosuma gis li nga ma gis ci yow mosuma koo gis moom moo ko wax ne ma mosuma xam mosuma am fii bu jubee ni yow moo tax ma am sañ-sañ bàyyi la sama kër nga may liggéeyee te li nga may liggéey yow yëpp ma wax la leen client bu fa mënti ñëw bu demee mën naa mën naa laa wax client yi fay ñëw yëpp te bu ñëwee nombre bi nga xamante moom la ñuy fay nombre boobu ngay verser sama jëkkër ci guddi gi mën na ko final mënuñu mënuñu dëkk di tooñ yàlla ba pare teg si di def loo xamante ne mën na ko gis nga massage bi ñuy def moom ah mu nekk tooñ yàlla la parce que lii nii lii nii binduñu ko ci fenn dafa légal wala binduñu ko ci fenn mu ne xam naa loolu ku wax ne massage baax na da wax lu la neex mu ne ko mu ne waaye xam naa ne doo nit ku bon xëy na lii ndogal la rek boo xamante ne daf laa waroon dal la mën na ko man kat instant bii sax dama bëgg a dem pour débrager wu une bonne fois pour tout parce que lii nii bëgguma sax mu jëm kaw ñëpp kenn di xam ne dama ëmb wala lii nii mu ne ma pour ngay dem jarul ngay dem jour boobu moo ko yekkati ci kawam waxaat na ko ne ma jour boobu noonu jarul ngay dem ne ma mun nga jël koka nga def si trois cuillères de kafe nga naan ko nga tëdd mun nga tëdd après tonton Ibrahima dina àll lii nii tonton Ibrahima sax bu mu bu mu xam ne sax yow instant bi loolu ngay def wala bu mu xam ne sax dangaa ëmb mën na ko waa baax na. amul problème jël leen mu ne ma dindal instant bii nag couvre-feu jot na noo koo def mais mun nga xaar ba suba nga bañ a dem seen kër di ànd ak sa yaay wala sa yaay di la xamal wala affaire bi mun nga xaar nga jël coca ak ñetti cuillère café nga dindi ëmb bi su ko defee problème du am kenn du la xamal mën na ko waa kon baax na ba léegi waxaguma ko ki nga xamante ne moo ëmbal